الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki julli ni mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu suñu mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéenay suivre seen site bi di jàtt ci ci ay programme am comme niñ ko baaxoo def ak yéen dellusiwaat nañ ci seen émission jotaayu koor ngir fas yéene waxtaane waaye ak lépp laa wiidante ci lépp loo xam ne dafa aju ci suñu diine ñoo ngi nekkan ci téere bi ñu tuddee al jawharu nafi sëriñ bi radiyallahu anhu bindoon ko ci wesaru al axdar yi waaye ñu nekkan ci bunt bi nga xamee ne mooy lu jëm ci sarta ay julli waaye faratay julli naka noonu ngëneelu julli ñu nekkan ci ñu mujj woon ci ngëneel yi nag tey nag ñu war a jël li nga xamee ni moom la ñu tuddee yi nga xam ne dañoo sib ci ki nga xam ne day julli moo def ko ngir mu wattandiku ko bu ñu nee sib nag nekkul ni kii julli mu ko defee da ciy am bàkkaar wala mu yàq ak julleem waaye maanaam tiyaaba jo yool ba yool lay lay wàññi moo tax dañuy dañuy bañ ki nga xam ne day julli mu koy def mu ni wakarihoo sib nañu waquufanaa suñu taxaw bi rijlin waaxid bi rijlin ci ab tànk waaxidatin ba badi benn fii xayri toolil fi'li ci lu dul eh, jëf jëf ju yàgg maanaam day wax ni sib nañ kiy julli mu taxawee ak benn tànkam maanaam taxaw ak ñaari tànkam ba ci yàgg mu taxaw ak benn tànkam te dañuy wax ni loolu sib nañ ko ci sart mooy mu rawatina ak mu yàgg mu def ko yàgg waaye bu fekkee da doon julli julli yu baree bari mu dem ma sonn nga xam ni mënatu ko tenir ndax sonnaay bi ak yàggaay bi boobaa dañ danañ ko may bu ko defee tamit boobaa sibeel nga day daal di deñ boobaa ngant day daal di dugg si waaye bu loolu amul nag moom nit ki daal di jekki-jekki rek daal di koy def julli daal di jël tànkam Euh, euh, maanaam lem benn bi daal di yëkkati benn bi loolu dañ koy sib ci julli mu ne wakari yu sib nañ ixtiraanu na ak lënkale rijleen ñaari tànk yi wala jaxal ak def fil fami ci gémmiñ ka dirhamin lu mel ni ñaari dërëm aw dirhamin wala benn dërëm aw xayrihi wala lu dul moom wala tifaat ak gersu wa hakada naka noonu tax mi doayn gëmmal ay bët fi salaat ju julli illaa li uzrun daa da ngeen ngànt misli lu mel ni ngelaw aw xaraami wala bañ a xoolu fa innoo naka moom xëy na idin boobee yu raaba def na ko sàkku mu niw ci moom mu ni bokk nañ ci yi si ba tey mooy nit ki bu dee taxaw muj ba ñu jël jaare tànkam yi kebele ko nga xam ni da koo tàncaloo ba nga xamee ni espace du ci am dañ koy sib dañuy bëgg mu xaw koo yaatale tuuti nga xam ne dara des na fa xaj waaye bu ko wala mu naj ko lañ koy dañ koy tere li ñu bëgg daal mooy mu xaw koo mu xaw koo yaatal waaye tamit mu bañ a yaatal ba nga xamee ni day jël lu ëpp ëpp ci ci ci sa pay waaye tamit naka noonu euh, bokk na ci li nga xamee ne dañ koo sib mooy ngay julli def sa gémmiñ lu mel ni dërëm wala ñaari dërëm wala loo xam ne daal euh, booy julli mën na laa déranger waaye bu ama bu caagin bu fekkee loo xam ne nag dafa am cafka boobaa day dugg lekk gi lay daal dugg yi te lekk ci julli moom bokk na ci yi nga xam ne waxat nañu day araam waaye def loo xam ne jël dara def ko sa gémmiñ ànd ak ngay julli boobaa dañuy wax ne loolu dañ koo sib nit ki daal dañuy bëgg bu dee julli moom mu mu mu denc ci lépp loo xam ne day nuru ak fo euh, daal di bàyyee boppam ak suñu borom subhanahu wa taala waaye tamit naka noonu lu lu gersu tamit ci julli dañ koy sip nit ki daal di julli daal di daal di gersu dañ koy sib gersu gi sax am na foo bu fa tolloo mën naa dem ba de yàq ak jullam waaye lu jëm ci gersu rek gersu gu ndaw waaye bu demee ba ëpp nga xam ne nit ki daal gersu wëlbatiku lu yàgg taxaw taxaw lu yàgg lu li diir loolu nga xam ko koo gis du xam ne kii day julli wala julliwul wala day jàpp ne sax julliwul boobaa dañuy wax ni mën naa yàq julli gi naka noonu di julli tamit gëmmu say bët dañ koo sib dañuy bëgg nga xippi ñooy fa ngay jàkkaarloo bu dee sa imaam la ngay xool sa imaam wala ngay sëgg xool ci sa kanam ci suuf loolu lañ bëgg waaye ngay gëmm ak yooyu noonu dañ koo sib waaye lu dul ni nag ngànt nga xam ne tey yow mi ngi poussière dafa bare lool muy ngelaw ngelaw lu baree baree bari ba tax nga daal di gëmm ngir bañ euh, ngelaw di lor la poussière bi dara dugg sa bët yeeg yooyu noonu boobaa dañuy wax ni sibeel amatu fa waaye tamit naka noonu bu fekkee da ngay jullee foo xam ni wóor na ni boo gëmul sa bët yi man na lu arab na ko gis ak yu mel noonu léegi nag nga gëmul sa bët ngir bañ gis araam wala nga taxaw du julli mel ni daa am luy romb loo xam ne na ni xool ko arab lu araam ma nga ca nga bañ koo xool ak yu mel noonu nga tax nga daal di gëm boba dañuy wax ni boba loolu loolu moom maanaam daa far jóge ci ak sibeel sax waaye day mujj nekk loo xam ne dañ koo sàkku ci yow loolu lañ bëgg nga def ko ngir nit suñu euh, maanaam diine moom dafa fonk nit comme ni nga xamee noonu la fonkee jëmmi diine waaye tamit noonu la wëlbati ko fonkaat nit ki nga xamee ni moom mooy dundal diine moo tax mu may yen ngànt yi mu ni wakare yu sib nan xaw xalaatan wax laa xawla wala quwata wa basmal ak wax bismillah Euh, fil fardi ci farata laafin naf li waxuma ci ci naaf laafin naf li du caagi naafila misli la bala wala kem lu mel ni a billahi mina seytaani rajim daani wax ne sib nañ bokk na ji nga xam ne dañ ko sib ci julli mooy ngay julli wax laa xawla wala quwwata illa billahi ali azim waaye tamit ngay wax bismillahi rahmaani rahim naka noonu ngay wax aoudu billahi mina seytaani rajim daa di ràññ na nag daal ni bu dee julli farata yi ci lañ ko sib waaye bu dee julli naafila yi moom amul benn boo xam ne kii na ci euh, maanaam tere nañ ko ci sibeel ga dana ci am bu dee julli farata lañ koy sib am na ci yenn bari na ci masa yoo xam ne sax ñoom dañuy wax ne ñoom dañoo dañoo jël bismillahi rahmaani rahim ñu ni ci saa maanaam dafa bokk ci alxuraan boole ko ci nga xam ne ñoom buñ dee julli am na ci ñoo xam ne dañ koy wax ci kaw waaye am na xam ne eh, dañ koy wax nànk maanaam dañ koy wax nànk ci suuf buñ paree doog a jàng faatiha ci kaw ndax maanaam am na ci yenn gis-gis yoo xam ne dañoo wax ne faatiha moom waaw bisimilah rahmaani am ci fatiha la waaye comme bu dee ñun li nga xamee ni moom nañu sukkandiku muy mazhabu Malik bi dañuy wax ni fa euh, bisimilah rahmaani rahim ubbikaay bépp saar la rek waaye taxu mu bokk ci fatiha moo tax kuy julli dañuy farata dañuy sim mu wax ko waaye bu dee julli naafile euh, dara dara du ci du ci nekk mu ne wa kullu maa lépp loo xam ne yu waswisu dana jax jax jaxale jax jaxale parce que jëmu ja la daa salaati yi fa julleem nga fa zaaka loole euh, wala fa ba daa feen zaaka loole lu ñu sib day wax ne lépp loo xam ne euh, day jax-jaxal julli gi euh, wala nit kiy julli lépp loo xam ne da koy jax da koy jax-jaxalee rek maanaam tax mu mën a mu mën di ko déranger ak di jax-jaxal ab xelam boobaa dañuy wax ne loolu maanaam lu ñu ciblé ci julli gi fii jay bi ci ci poosam moo xam ci poosam la aw zahri wala ginnaawam aw fi amaam wala ci kanamam aw aw jan bi wala ci wetam kama comme ni nga xamee ne nasa yaxal na ko bi ci moom al imaamu kilifa ga wala njiit ba day wax ne lépp loo xam ne daal dina jaxa-jaxal jëmm ji nga xamante day julli dañ koy sib mujj na dinañ sib waaye rawat mu nekk loo xam ne da koy def si poche nga xam ne dafa diis gann ba sëgg da ngay dégg muy kalang-kalang di ko déranger waaye nit bi si si gi naka noonu wala mu nekk ci ginnaaw mu nekk ci kanamam nga xam ne da koo teg ci kanam di ko jax-jaxal yooyu wax ne loolu noonu bu nit bu dee julli dañ koy sib wala loo xam ne tamit ci ak wetam la nekk sax nga xam ne bu dee julli day jax-jaxal am xelam ak di ko di ko di ko eh, te loolu lu gaaw day gaaw a génn ci nit ki ci julli gi wala am xelam ak yooyu te dañuy wax ni boobaa loolu dañ koy sib mu ne wakar yow sib nañ alfikra xalaat la da salaati fa julli ga fi kulli amri eh, ci ci mbirum bépp mbiri àdduna aatin boo xam ne dana dikk fakkulment lépp loo xam ni ci soxal dana dana soxla def na ko soxla anil xusun walif ak toroxlu lalaa soxlaa dikk fa sëg julli ijtanim na ko wàcc wattandiku yaara yul ak waaji tey loo xam rek dafa jëm ci xalaati manam maanaam xalaat ci mbiri àdduna nga xamni nekul nekkul xalaat ci sa borom dañuy wax ne loolu dañ koo sib dañuy bëgg nit ki bu dee julli muy xalaat ci borom waaye alquran gi nga xam ne mi ngi koy jàng mu koy bàyyi xel di di ko seetantal di xalaat ci mbiri suñu borom waaye di xalaat ci mbiri ëllëg dañuy wax ne loolu lañ gën a bëgg ci ak julleem te am na loolu lañ loolu mooy li nga xamee ni mooy ak julli te loolu lañ bëgg waaye di xalaat ci leneen loo xam ne mbiri àdduna la ak yooyu noonu loolu dañuy wax loolu dañoo wax ne dañ dañ koy sib kon daal li ñu bëgg mooy nit ki di xalaati suñu borom ak lépp loo xam ne dafa aju ci suñu borom ngir mu mën di dolli ak ragal waaye te mu mën di xam ni moom mi ngi ci julli daa di wax ne lépp loo xam ne nag da koo soxlawoo ci julli lu dul ak ragalu maanaam ragal ragal ak toroxlu ci sa borom subhanahu wa taala dañuy wax dañuy wax ne yow moom borom téere mi ngi wax ne maa ngi la koy wattandikuloo nga nga sàmmonte ak loolu bañ mu bañ laa dal nga xam ne booy julli daal li nga xam ne yaa ngi julli waaye tamit nga bàyyi xel lépp loo xam ne sa boroom la waaye tamit ngay bàyyi xel julli gi nga nga fexe yu baree bari nga génne ko ci xel donte ne doomu aadama xelam moom dafa gàtt lu ko këf yomb na waaye dañuy wax ne nit moom bu lu xelam ko gàtt gàtt na jéem di ko tënk ci nànk-nànk di ko tënk ndax du caagin day xëy xëy rek man euh, àttee julli yëpp yëpp waaye tamit man euh, maanaam euh, alxusuux maanaam mooy toroxlu gi nga xam ne moo nekk ci julli dëgg-dëgg waaye day def di def incha allah bu nekk bu bàyyiwul rek suñu borom dana ko gindi loolu moo tax bëgg na ci ki julli daal mooy muy muy bàyyi sàmmonte ak yooyu noonu di bàyyi xel yooyu noonu di fas yéene yam ak yéen fii nii si téere bi nga xam ne comme niñ ko daan defee ak yéen rek euh, diir weeru koor gi yëpp chaque jour ñu ñëw di ko ànd ak yéen ñu nekk nañ ci cappaandaw maanaam fan yu mujj yi nga xamee ni moom mooy weeru koor kon dañuy fas yéene yam ak yéen fii téere bi di wax ne nag euh, liñ ci jublu mooy jàngale euh, jàngale gi nag laabire lañ koy tudde waaye ak fàttalante ci lépp loo xam ne lu aju suñu diine la ndax diine moom dafa fonk li nga xamee ne moom mooy xam-xam ndax xam-xam euh, da koo teg jox ko itte ju mag a mag nga xam ne yow mi nga xamee ne da nga nekk ab jullit da lay soññ chaque jour nga xàmmee àtte sariya yi li tax yu baree bari mu sonn ci def ci ay taxawul ak yooyu noonu ngir bëgg yow mi nga xamee ne ab jullit nga nga sàmmante ak yooyu noonu waaye tamit naka noonu nga mën a xam booy julli yi farata nga xàmmee ko yi sunna nga xàmmee ko ndax bokk na ci njariñ la mooy booy julli xàmmee woo li farata xàmmee woo luy sunna xàmmee woo li luñ sib te bu ci nekk daa am nañ koy defaree boo jullee bàyyi ab farata masalan nga doon julli bàyyi ab rakk te yow yàgg nga dégg ñu ni ku julli de bu juumee day maanaam bu dee daa wàññi xabla salaam lay doon bu dee daa yokk baada salaam lay doon léegi na nga ni ah man damaa bàyyi ab rakk damay sujjud xabla salaam daal di daal di julli ba pare sujjud xabla salaam boobaa dañuy wax ne julli gi wéeru ndax li tax mooy ki nga xam ne daa bàyyi ab rakk rakk farata la te farata kenn deesu ko sujootal waaye bu boo jullee ba noppi ba nga xamee ne taaya nga euh, ba ba sa maanaam rakk bu mujj ba nga xamee ne yaa nga ci boo taaya ba pare da ngay sëlmu daa indi beneen rakk muy rakk ba nga xamee ne da nga caa bàyyi woon farata bi daal da nga koy ilxaq maanaam da nga koy supprimer nga xam ne boo bokkatul nga indi boo jullee pare nga indi beneen rakk boo xam ne da koy remplacer loolu nag boo xam boo xàmmeel farate doo ko xam bu dee sunna la am na benn sunna yenn sunna yoo xam ne ay benn lañ boo ko bàyyee maanaam de ko bàyyee da ngay da ngay sujootal waaye am muy juróom-ñett waaye am ci yoo xam ne boo ci bàyyee benn sax dañuy wax ne boo ko sujootalee euh, moom boobaa mën na day yàq sa ak julli maanaam sujootal sujoot bu xafif boo xam ne bu woyof la nga sujootal ci benn euh, boobaa dañuy wax ne loolu day yàq ak julli kon nag dañuy wax ne bu dee ñetti sujoot nga bàyyi jàpp ñaar boobaa ngay doog sujootal euh, nga doog sujoot loolu nag boo ko xamul euh, boo xàmmeewul sa diine do tax nga man ko waaye tamit naka noon yi nga xamee ni moom la ñu tuddee ñu ci bi nga xam ne boo xamul ab ateem ndax day yàq julli wala du yàq julli yooyu noonu moo tax diine daal di insister bu baax a baax ci li nga xamee ni moom moo jëm ci julli rawat naang boole farate waaye surtout julli nga xam ne moom moo gën a manque ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom bu yéwéne dañuy wax ne lépp yéwéne waaye bu yéwénul amaana leneen leneen li ñi nga xamante daal yéenay topp seen site bi di Diatty TV fu leen mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew di rawat naag diiran weeru koor yi ngeen topp seen émission bi di jotaayu koor ci njàngale mi ñoo ngi leen ñoo ngi leen ci sant bu baax baax di am mbégte ci suivre bi nga xam ne yéen a ngi koy suivre waaye lépp loo xam ne rek euh, la ko tàmbalee bis bu njëkk ba ba bis bu mujj bi gis ngeen ko mu nuru loo xam ne erreur la wala fët ngeen xam ne kii wax moom motul te moo xamul li ñuy wax ne jaam bi rek ja suñu jaam moom pexe la am suñu war mooy ki nga xam ne moom moo xam ku gis ni tamit dañ doon leeral mbir nga xam ne at attachariant la bi ñu ko leeralee ba ci digg mu mel ni dafa dafa xaw a lëntaat ci biir boobaa na nga xamee du ñàkk xam waaye en général ñàkk maanaam ñàkk maîtriser wax bu bi nga xam ne moom lañ bëgg bëgg dëgg dëgg dëgg ba tax na moo tax léeg-léeg da ngay expliquer dara ba ci digg sax euh, wax ji xawlaa leneen la dikkal la nga bàyyi wax jooju loo ko yëg képp koo xam daal gis nga fi lu nu ab atta sharia boo xam ne nañ ko firee ba euh, maanaam mel na ni du noona boobaa euh, boobaa dañuy dañuy ñaan dañuy maanaam dañuy doggaandu ci loolu te di ci jéggalu te xam ne kon bëgg wuñ ko woon noon li ñu li ñu dogal lépp daal te am nañ yaakaar ne sax loolu mën nañu bañ a dal li ñu gën a yaakaar ne moo ñu dal daal mooy expliqué loo xam ni ñoo ngi ko doon expliqué ba ci digg ba leeral leer ga bañ a leer dëgg dëgg dëgg wala mu leneen dog ñu ba nga xam ne nañ ko bëggee ah, waxee woon ko noonu boobaa tamit ngeen jéggal ñu ko te xam ni euh, ni ma ko waxee jaam bi moom day jéem ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne daal def nañ ko ci ay yiw mu bindal ñu ko suñu téere ay jëf yiw waaye tamit yéen ñi nga xam ne yéen ay siifur lépp loo xam ne def nañ ko ci ay yiw waaye lépp loo xam ne def nañ ko ci ab saani mu jéggal ñu ko di sant ñi nga xam ne ñoo doon topp émission bi yëpp di sant suñu caméraman bi di di am mbégte bu baax sëñ Modou Diop moom moom yaakaar naa ah, ko xarañ la ci liggéey bi ah, bu du woon ak moom de suñ ñuy gis yi nga xam ne ñoo ñuy gis ba man na ma feetaane fu ne donte moom kenn gis ko waaye man maa ngi jàkkaarloo ak moom kon maa ngi leen koy sant waaye di di ziar ñëpp di am mbégte bu baax a baax di sant mboolem ñi nga xam ne daal ñoom ñoo euh, lënk jàtt TV ñi ko jiite ak ba ci man mi nga xam ne bokk naa ñi ci gën a xeebu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp di am mbégte ak yéen ci euh, topp yi nga xam yéen a koy topp seen site bi di jàtt TV wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bébé